أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi waat ak yéen ci téere bi tudd kitaabu tawxid ñu toll ci buntu ashafaatu te mooy rammu waxtu wi paase ci talaata ci waxtu wi ñu tolloon mooy ñu ngi woon ci lan mooy rammu ñaata xaaj la ban lañ ci nangu ban lañ ci saxal ak ban lañ ci bañ fàttali woon nañ mbokk yi biñ ci nangu te saxal ko yaakaar naa ne ci boobu lañ tolloon mu ne bokk na ci min hadihi al ayat yattadihu lana an ash-shafa'ata la tatahaqqaq illa ba'da an ya'zana allahu liman yasha'u bis-shafa'a wa an yarda anil mashfu'i lahu nee na ci aaya yi ñu paase bu ñu déggee firi bi dana leer ci ñun ne ramm du mën a nekk lu dul ginnaaw ba yàlla joxe ndigal kenn ci ñun bu ma am yaakaar ëllëg ne su jaamuwul yàlla dinañ ko ramm fekk neexul yàlla déedéet kenn ku nekk ci ñun bu fekkee dinañ ko ramm balaa ramm gi di am day fekk mu neex yàlla ba pare yàlla joxe ndigal ne diw ramm leen ko nee na ñaar moo ciy nekk bu yàlla joxee ndigal ba pare day fekk kii ramm mu neex yàlla kii ñuy ramm yàlla kontaan ci moom kii ràmm yàlla jox ko ndigal mu ne fa man talaba shafaa min ahad képp ku utati ràmm ci kenn ala gayri haza al waj ci beneen anam budul anam bii nga yaakaar ne ëllëg alaxira am nga fa koo xam ne wala am nga fa ñoo xam ne mën nañ laa ràmm ci yeneen anam yudul yii faqad waqa fi shirk kooku dugg na ci bokkaale te ku dugg ci bokkaale mooy ku jëm safara ndax bokkaale moom ku ko deewaale rek sunu borom subhanahu wa taala daf lay daf lay lakk daf lay sant nee na sawaun kaana man talaba minhu shafaa man tuliba minhu shafaa hajran moo xam sax li nga xam ne dangaa bëgg mu ràmm la mu nekk xeer aw sajara wala mu nekk garab aw sams wala mu nekk jant aw qamar wala mu nekk weer aw insaan wala mu nekk nit mayitan ku dee aw xayan wala muy dund mu ne mahma balagat manzilatahu ak waajooju daraja bu mënta am ak martaba bu mënta am nañu yëpp ne loolu mënta nekk kon ndeke gis nga yi ma tudd nii nañu bàyyi xel ne dafa gàllankoor doomu aadama yi ba egguñu ci yàlla ban la njëkk a wax xeer xajar xajar xeer ñaata tey doomu aadama ci kaw suuf ñuy jaamu xeer ñaata kenn xamul nu mu toll ay nit yoo xam ne dañuy jaamu xeer ñaata ñii di takk xeer ñii di barkeelu ci xeer ñii di raay xeer am na ñuy sujjóot sax ci xeer am na ñoo xam ne tey ci xeer yi da ngay gis ñu ne diw fii la duggoon dañuy ñëw dugg toog foofu léeg-léeg sax ñu ñëw di raay barab boobu ndeysaan ànd naa ak ay jigéen màkk ma yóbbu leen kullu ziyaar ñu jox ma ndigal naa leen yóbbu ñu dem visité yi ma jiite leen ma ñëw di leen won place yi am na benn place mooy leen wan ñuy for ay xeer man leen xeer pour lan la ñu ne dañuy barkeelu man leen xeer bi amul njëriñ ñu ne ah yóbba nga wax ma sonn rek xeer yi moom dañ koy yóbbu waaw dañ koy yóbbu de dañ ciy barkeelu man leen li xeer kese la moo xeer yi nekk Sénégal ñëw ñu ne de mukk mënul nekk benn non def ñu yóbbaale ko noonu lañ buubaale xeer yooyu xaw ma fu ñu jëm ak moom daal di koy indi waaw kon xeer amul njëriñ xeer léeg-léeg nga gis ku dem ci barab ñu ne sëriñ bi fi la doon toog muy raay karo bi li karo kese la siin lañ ko liggéeyee amul barke ban njëriñ la am amul njëriñ du du place yi fi gaa yi doon toog du loolu mooy ña fa daan toog lan lañ daan def buñ fa toogee nga def loolu loolu mooy wax bi waaw mais ab xeer mënta ràmmu nit àllaaxira xeer aw sajar wala garab garab day gis tey ñoo xam ne dañuy xas garab gi ñii dagg ci reen gi ñii dagg ci xob yi ñii di barkeelu ci garab gi am na ñoo xam ne dañuy tukki uniquement ngir toog ci garab gi toog parce que diw toogoon na fa loolu moo tax Omar ibnu Xattaab daal di daggoon ba garab googu ñu tudd bayatu ridwaan ba garab ga yonent bi toogoon jaayante ak saxaaba yi ba Omar gisee ne bu ko fi bàyyee gaa yi bokkaale mu gor garab gi Ousmane ba mu gisee ne teen bi jaara yonent bi duggoon fitna la nar a indi ndax ku nekk bëgg ngaa jot jaaro bi mu sakk teen ba gis nga maanaam lépp luy indil nit ñi bokkaale dañ ko war a dañ ko war a rey dañ ko war a dindi parce que lan da yóbbu nit ñi safara xoolal tey Sénégal bunt yi ñu ubbi pour bokkaale kenn xamul nu mu toll xeer amul njëriñ garab amul njëriñ sams jant bi amul amul ban njëriñ la ñu amal lim ñu amal mooy li ñu yàlla def pour mu ñu koy defal mu ñu koy defal waaye mënul dugal nit aljanna mënul yóbbu nit safara xamar weer wi kazaalik gis ngeen ibrahim fekk na nit ñi di jaamu weer falamma janna alayhi leylu raa kawkaban qaal ba aaya gis ngeen ba mu gisee biddéew gis gis gis fan la mujj wala aw insaanan wala doomu aadama rawatina nag doomu aadama ba mayitan mu nekku dee ma ne aw xayyan sax même bu doon dund sax lu mu am am daraja yëgal ne yowmal xiyaam mënalu la dara lu dul yàlla jox ko ndigal waaw yàlla moo ñu wax ci quraan ay aaya yoo xam ne buñ ko gëmoon dañuy noppalu sunu borom nee na yawma yafirul mar'u min axi bis bu nit di daw mbokkam wa ummihi wa abi di daw ndeyam ak baayam ku daw ndeyam ak baayam ni nga bàyyi keneen yaakaar naa ne ki nga yaakaar lu mu mën mën mën mën mën bu ndeyam ak baayam taxawee ci kanam nga taxaw ci kanam kan lay jël ah waaye yàlla nee na bu leen séenee ñoom ñooñu day daw yawma yafirru lmaru min axiihi bis bu nit di daw mbokkam wa ummihi wa abi di daw ndeyam ak baayam foofu la yem wala ay yem lu mu ci teg wa saahibatihi wa bani muy daw doomam ak jabaram waaw ma ni ku daw ndeyam ak baayam daw doomam ak jabaram ndax keneen am na fa place lii alxuraan la problème bi nag mooy nit ñi tey ndeysaan bu nit ñi déggoon alxuraan kon dana noppalu ku toll na yàlla wax la lii beneen waaye ne la déedéet man man man moom bu gaa lu gaa yi daw daw daw man dinaa dinaa ñeme dinaa am fit ñëw jël nit ñi dugal aljanna et puis ñaareel bi mooy kan lañ fi dégg ci borom xam-xam yi wala sëriñ yi mu ne yowmal xiyaam damay rammuwaate est-ce que moom dugg na àjjana ba pare xam nga loolu mooy wax bi da ngay am yaakaar rek ne ku baax la xëy na ma nga aljanna xëy na mais fii nu toog nii amul kenn ci ñun ku mën a dagu ne ne neen diw mu ngi aljanna parce que xamoo ci dara amoon la leer da ngay am yaakaar parce que ku baax la woon wala li nga ko xamal wala li nga ko déggal lu baax la nga am yaakaar ne mi ngi aljanna mu ngoog kon nit lu mu am am daraja wala muy dund wala mu dee nañu yëg ne ëllëg àllaaxira mënu fa dara lu dul yàlla jox ko ndigal ne ko defal mu def sunu boroom su ñëwee ci ñetteelu tomb mooy tahrimu talabu shafaa min gayrillahi taala def ci am boo xam ne moom dafa haram mooy sàkku ramm la nga sàkku ñu ramm la ci kudul yàlla loolu moom dafa haram laqad azamat al fitnatu bi talabi shafaa bayna ashaabil qubuur nee na fitna bu rëy jolli na dugg na tàbbi na diggante ñi nga xam ne ñoo doon sàkku ci seeni kilifa wala ay bàmmeel ràmm ñoom ak borom xam-xam yi li tax Sénégal neexu la waxtaane diine neexu la jàngale kitaabu tawxid neexu la waxtaane tawxid mooy nit ñi dañoo nekk ci ci ci ci li tawxid bi di tere soo ko waxee benn ñaar ñett nga gis ko ne kii ñun lay wax waaw yéen la ñuy wax xam nga lu tax yéen la ñuy wax parce que alxuraan moo leen wax li ngeen def moo baaxut alxuraan tudd ko parce que yàlla moo ko tere li yàlla tere nag ku ci nekk yow la loolu moo tax tey mu nekk ay barrières yu ñu baare télé yi doo dégg ñu fay waxtaane lii rajo yi conférence yi conférence sax boo koy tem sax tey boo koy jox conférence yi da ngay ñëw seet si ko ne ko ah man dama bëgg conférence mu ne waaw ban tem boo ko waxee yenn tey mu ne ah sëñ bi ma sañoon tem bi nga changé ko c'est parce que tem yi day indi fitna rek waaw mais léegi bu ñu bàyyee jaamu yàlla bañ dee dugg safara loolu kay moom fitna lan moo tax nit ñi duñu leen wax dëgg yàlla bi lan moo tax lan moo fi indi problème ba kenn ñemewul wax dëgg bi yàlla rek lañ war a jaamu ëllëg yowmal qaam kenn mënu fa dara mais yàlla moo ko wax wala léegi léegi yàlla waxul yowma yafirul mar'u min axi wa ummi wa abi wa saahibati wa bani yàlla yemul foofu de dane li kulli imri'in minhum yawma izin sha'nun yughni yàlla lu tax ñuy dawante mu ne ku ne da nga am loo doy ku ne da nga am loo doy loolu la yàlla wax li kulli imri'in ñeel na kenn ku nekk ci nit ñooñu minhum ci ñoom yawma izin keroog bis pénc ah sha'nun mbir moo xam ne yughni moom la tal looloo ko doy yàlla yemul foofu waaye nee na yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idin bi bani wa sahibati wa axi wa fasilatihi allati tuwi tuwi wa man fi l ardi jamian summa yunji yàlla nee na bëccëg a ngi ci bëccëg yi ku lankoon bañ a jaamu yàlla al mujrim mooy criminel dana mébét yawaddu dana bëgg law yaftadi mu jotu xam ngeen lan mooy jotu xam ngeen jot mooy lan mooy lii am lii léegi ci Sénégal sàcc ay milliards ñu laaj la caution am mili ay millions ñëpp danañ sàcc Sénégal waaw ñëpp danañ sàcc lu tax ku sàcc milliard ñu laaj la caution 500 millions ci milliard bi nga sàcc nga dem jël ci 500 millions ñëw joxe ñu ne la demal nga toog léegi ana li des ñaata des gis nga li nga sàcc la nga war a delloo si mais caution caution amul ci lislaam moo tax seen luwaa yi du du du luwaa wu dëgg tey bu fekkee ku ñàkk la ku amul dara bu ñu ko laajee caution moom lu muy joxe ki sàcc ku doog paaka dañ koy yàpp duuma ba mu dee barki démb dégg naa Touba ku sàcc alan ay xar ah ñu fekk ko fu mu doon rendi xar bi ñu dóor ko ba mu dee wala déggu leen loolu ah man dégg naa ko ci rajo bi dóor ko ba mu dee ñi sàcc millions yi nag ñi sàcc milliards yi nag te ñu xam leen ñu kenn du leen def dara kon problème bu rëy moo am laqad azamat al fitna mu ne fitna gi rëy na fitna gu rëy moo tàbbi bi talabi shafaa ci ut ramm min ashaabil qubuur ci niti bàmmeel yi bi daawa annahum yuqarribuuna ila allahi taala lu tax ñi dem ci bàmmeel yi di sàkku ñi dee ñi nañ leen ràmm ëllëg yowmal qiyaam ñooñu soo leen laajee dañ naan ñii mën nañu jegeel yàlla mën nañu ràmm ci yàlla ñooñu kay bu ñu mënoon dara dundee bàmmeel mënul dara firi nañ fi aaya keroog boo xam ne ñun ñëpp bu fekkoon ne dégg nañ aaya bi kon mbir yu mel nii dootuñ ci dugg borom bi dane wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man laa yastajibu lahu ila yawmi alqiyama ki gën a réer mooy kii woo koo xam ne du ko wuyu est ce que foofu la yem mu ne kii ngay woo bu la déggoo nit du la wuyu mu ne boo ko doon woo ba yawmal qiyama du la wuyu day leer na kon ku dee nu muy wuyoo joxe naa keroog misaal ma ni kenn ci ñun fi bu ñu ko doon duma ci jumaa ji baayam di dund mu koy woo te nekk fi est-ce que dina ko wuyu mastamaak ku dee kon ku dee ku nekk ci bàmmeel mënul dara mais problème bi mooy da ngay dégg ku ne ku ñeme taxaw naan o koo waawno hanki ko hannde o ɓuri ɗum waawde li mu mënoon démb tey la ko gën a mën fekk nee na maanaam loolu mooy yéen ñi taalibe yi lu ngeen soxla rek waa ji ba tey mën na ko loolu xam ngeen ne du dëgg su ko mënoon kay kenn du ko sang kenn du ko sang kenn du ko suuli loolu yëpp dañ ko koo defal bi mu ko mënee moo ko daan defal boppam lu tax tey ñu defal ko ko ku koy xam ngeen ne mënatul dara kon nee na wa haza al amru huwa allazi xazara allahu minhu nee na mbir mi moom la yàlla di tere ñuy dem di uti ramm ci kudul yàlla wa haza al amru mbir mi huwa allazi xazara allahu minhu nee na moom la yàlla di mooy tandikuloo nit ñi wa huwa ma kaana yad'i al mushrikuna li asnaamihim nee na lii sax bokkaalekat yi ñi doon jaamu xërëm yi soo leen laajoon waaw yéen xërëm yi nag ñu daal leen xërëm yi ñoo ñuy yóbbu ci yàlla wala xërëm yi ñoo ñuy indil lii wala xërëm yi ñooy suñu digganteeg yàlla pour ñu yegg ci yàlla dafa sori foog ñu jaar ci xërëm yi ba pare loolu ngay dégg ñu naan diw jàpp ci diw diw jàpp ci diw diw jàpp ci diw diw jàpp ci diw ba mu egg ci yonent bi yonent bi jàpp ci jibril ñu yegg ci yàlla loolu ngay dégg ñu lay wax il faut nga am foo jàpp sunu borom subhanahu wa taala mu nettali ñu ci suratu zumar aya 3 mu ne walladina ittaxasu min dunihi awliya ma nacbuduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa sunu borom nee na walladina gaa yi nga xam ne ismu mawsul la saa yoo déggee alladina ci quran ñi am xel la yàlla di waxal ku amul xel bokkoo kon kan moo am xel nit kon ñun la yàlla di waxal mu ne wallazina ñi nga xam ne ittaxasu dañoo jàpp min duunihi keneen ku dul yàlla awliya def ko ay waliyu gis nga baat bi la yàlla indi waliyu awliya la wax mooy jamu waliyu def ko ay péete farandong moom dafa ne ñii mën nañ dara soo leen laaje waaw ñu ne la ma naabuduhum ñun de jaamuwuñ la ñun kat jaamuñu kii illa lu dul li yuqarribuna ila allah ngir ñu yóbbu ñu ci yàlla ñu jege di la alquran fi mu ne nii koo fi ne waaye lu tax nga nga nga topp kii mu ne la ma ma yóbbu ci yàlla kii am na lu mu mën fekk yéen da ngeen a bëri problème kii dafa mën dara lu mu mën lan la mën bu fekkee am na lu mu mën ci àdduna la yem fekkee am na lu mu la mën a dimbali ci àdduna wallahi al alaxira mënu fa dara te wallahi boo duggee bàmmeel boo jaamul yàlla boo duggee bàmmeel xam ne kii mënul dara ki nga xam ne bi nga feebaree mënu ci dara mu ñëw ci hôpital bi di jàng ay Faatiha ak ayatul kursi ak Falaq ak Naas di la tëfli munu ci dara malakal mawti rot ci sa ruu munu ci dara ñu dugal la ci morgue bi munu ci dara ñu futti la munu ci dara ñu sàng la munu ci dara ñu sàng la munu ci dara ñu yeew la munu ci dara ñu teg la ci kanamu jumaa ji jullee la munu ci dara ñu yóbbu la ba ci armée di gas bu mu xool dugal ci biir munu ci dara kooku bu la ne àllaaxira mun naa fa dara lay nax kon sunu borom daf ñuy wax aaya yi pour ñu xam ne allaaxira wallahi kenn mënu fa tus ku dul yàlla ku jaamul yàlla da ngay perte yàlla da lay lakk ëllëg loolu mu lay leer sunu bopp yàlla nee na gaa yooyu bu ñu leen waxee yéen lu tax ngeen di topp ñii lu tax ngeen leen di jaamu ñu ne la ma naabuduhum ñun baat boobu la yàlla utilisé xoolal ma naabuduhum ñun jaamuwuñ leen illaa lu dul li yuqarribuna ila allah ngir ñoom ñu jegeel ñu yàlla zulfa ak jege ñoom dañ ñu war a yóbbu ci yàlla ñu jege bu doon loolu la kay sahaaba yi jaamu yonent bi ñoom Aboubacar Omar Ousmane Ali ñu jaamu yonent bi ndax yonent bi yóbbu leen ci yàlla mais déedéet yonent bi daf leen won yoon wi rek yoon wi la leen won maanaam li ma nekk nekk leen ci julli jaamu yàlla lépp lu yàlla digle nekk ci comme man yonent bi ni ma ci nekkee nekk ci loolu mooy mbir mi waaye yéen dem leen ngeen caaxaan dem leen ngeen sàkku alal bu daganul dem leen ngeen nekk ci lu leen neex foo leen def fecc leen def leen doo fi xoolal li garaaw Sénégal mooy doo gis sëriñ buy tere taalibe bi musique doo dégg màggal wala gàmm wala ziyaar wala wala wala sëriñ bu yërmi ko naan taalibe yi bàyyi leen fecc bàyyi leen musique yéen ñi sama taalibe yi nga xam ne ay musiciens ngeen génn leen ci musique musique daaraam au contraire da ngay dégg ñu ne musicien bi gën a mag indi na ci jumaa ji ay rajo footballeur bi gën a ngand joxe na mbëru làmb bi joxe na mannequin bi joxe na jaaykatu baar bi joxe na rek ngay dégg lonaas joxe na waaw benn waay mu ne indi nga benn bunt bu garaaw benn waay nee na loterie nationale bi ñu ko indee Sénégal sëriñ ñëpp dañ koo araamal ne bu kenn jënd dafa araam nit ñi loterie nationale jarul techniciens yi xam nga Sénégal dafa am ay techniciens yu leen di xalaatal dëgg ruq daan ne xam nga nu ñuy def bu ñu bàyyi gars yi dinañ ko nangu léegi ni ngeen di def mooy da ngeen di ut daayira kër xalifa bu nekk utal leen ko daayira ci ñiy liggéey ci LONASE na am daayira murit na am daayira tijaan na am daayira laayeen na am daayira xaadir na am daayira na am daayira na am daayira su su su seen affaire jotee ngeen dindi xaas bu takku jox leen ñu dem ziyaara sëriñ bi ne ko ñun ñun ñooy daayira ibaadu rahmaan bi nekk LONASE ñun la ñu ngi ni ñëw nañ ñoo indi un million bi fan la gaa yi mujj yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla dëgëral loolu lañ mujj kenn waxatul araam na gis ngeen on gis nga loolu na musiba la li li li waa LONASE ku lekk seen daay ku lekk seen seen seen kii ziar loo lekk su xaraam nga lekk fekk seen alal daganul alal ju xaraam la waa pays bi waa LONASE ku lekk seen alal alal ju xaraam nga lekk parce que daganul te man akla luqmatan min xaraam laa tuqbal lahu salaat arbaina yawman ku lekk benn tibb bu xaraam soo jullee yàlla du ko nangu am na riwaaya bu ne 40 jours soo jullee yàlla du ko nangu kon boo ci deyee foo jëm boo ci tabaxee kër foo jëm boo ci liggéeyee ba retraite foo jëm kon da ngay julli sa julli bi yàlla du ko nangu ñaareelu aaya borom bi mu ne ñu qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi aw min dunillahi qul ud'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fi as-samawati wala fi al-ard wama lahum fihima min shirkin wama lahu minhum min zahir borom bi ne woo leen qul la wax yow muhammad yow muhammad waxal na nga wax ak ñoom ne leen ne udu alladina zaamtum woo leen ñi ngeen yaakaar ne min dunillahi du ñu yàlla ñi ngeen yaakaar te du yàlla woo leen leen ñi ñëw woo leen leen su ngeen leen woowee ba ñëw di ngeen yëg ne ñoom laa yamlikuuna misqaala zaratin fi samawati wala fi l ardi li yàlla rek moo ko ñëwee asamaan seeg suuf si ñooñu ngeen yaakaar yàlla nee na moomuñu fi lu toll ne pépp suuf moomuñu ko allahu akbar li yàlla rek moo ko ñeme wax xatta seen jawar ji sax moomuñu ko léegi ñu dee keneen takk oto bi moomuñu ko léegi ñu dee keneen war ko kër gi moomuñu ko léegi ñu dee keneen dëkk kon ana lu ñu moom laa yamlikuna la yàlla wax moomuñu amuñu misqaala zarra lu toll ne pepp atome yàlla waxul sax suuf atome la wax atome atome bët mënu ko gis microscope moo koy gis ay pepp yu ndaw la yoo xam ne tey boo ko doon xool nii mu ngi naaw fii ñu nekk mais mënu ko gis ak sa bët foog nga takk microscope di xool nii nga gis ko yàlla leen na ñoom lu toll noonu sax amuñu ko ci kaw suuf wala ci asmaan ba pare wa ma lahum fihima min shirk amuñu lu ñu leen di associé ci asamaan wala ci suuf amuñu lu ñu leen di boole waaw kon lii du alxuraan waaye nag suñu problème mooy alxuraan bi yàlla moo ko wax te dëgg la waaye problème bi mooy ñun duñ ko dégg duñ ko jàng kenn duñ ko firil Sénégal kañ la ñuy firi alxuraan kañ ba kañ weeru koor ba weeru koor wala jàkka boo fi dem lu dul jàkka bu yàlla yërëm weeru koor ba weeru koor la ñuy firi alxuraan d'accord ngeen te su ngeen fa demee firi ba doo ci jëlee njëriñ wala d'accordu leen firi ba doo ci jëlee njëriñ lu tax yaa ayyuha alladina amanu ee yéen ñi gëm yàlla ñu ne waa Madina inna allazina amanu ñi gëm yàlla misla aboubacar wa umar comme aboubacar ak umar inna allazina kafaru aboubac abou jahlin ak umaya ana waa sénégal wala ñu ne qul waxal udu alladina woo la ñi nga xam ne zaamtum ñoom lañ yaakaar min duni laay dañu yàlla laa yamlikuuna amuñu misqaala sarra li toll ne pépp atam fi samawaati ci asamaan yi wala fil ardi ci suuf wa maa lahum amuñu fii maa ji ñoom ñaar min sirkin ñu leen di associé suñu firin lu ngeen di jële lu ngeen di jële dara dañuy toog nii rek ndeysaan ndeysaan dafa caa gis paa bu ne nii daal daanu ñëwaat eh waaye man de ma sonn gis nga gëmmentu da ngay gëmmentu da nga gëmmentu xam nga da ngay gëmmentu parce que li leeralul la ko foog nga nelaw yi jàkk ji ñëpp di nelaw waaw lii rek la ñuy dem def ni kaamil xoolal par jour ñaata taf ñaata xisib la ñuy tafsir ñaar ñaar par par par jour ñaari xisib dañuy dàqanteeg weer wi jour bu nekk ñaari xisib 3 heures taxon ñuy dàqanteeg ñaari xisib 3 heures taxon bu weer wi di jeex. kaamil bi jeex loolu rek moo leen ci intéressé na kaamil bi jeex kaamil bi jeex moo leen di intéressé fekk du loolu du kaamil bi na jeex non yàlla ëpp na loolu. alxuraan bi ñaata la wàcc 23 ans la alxuraan wàcc 23 ans bu doon kaamil bi na jeex kay yàlla da koy indi rek ne Muhammad am kaamil baa ngoog wala 23 ans 23 ans ñaar fukki at ak ñett alxuraan di wàcc yàlla di jox jullit ñi partout ñu leen koy leeralal ñuy comprendre moo tax ñu génn ci liñ nekk ñun ñi nga xam ne dañ ñu koy xëpp duñ ko dund xamuñu ko lii nii ma ñii firee nii billaahi wallaahi buñ ci doon nekk guddeeg bëccëg duñ dem kenn du kenn xamul lan la fekk alxuraan ëpp na loolu yàlla day wax ak doomu aadama yi pour ñu xam ne moom mooy yàlla suñu bàyyiwul bokkaale duñu duñu duñu texe àdduna duñu texe àllaaxira Sénégal li fi njëkk a yàqu li borom xam-xam yi échec mooy tabax pas-pas foofu dañoo échec complètement dañoo ñëw dugal nit ñi ci tarxiib jaamuloo leen yàlla fekk tabaxuñu pas-pas yi voilà di julluloo nit ñi di leen woorloo di leen di leen moo taxit balee yàqoo lii mun tabax parce que tabax su fondement bi baaxul lu matériel yi bëri bëri lu mu bees bees bu fekkee fondement bi baaxul du dem day yàqu rek bu yeboo pa saaku ciment bi nga móol ko par 10 briques xam nga kooku briques yi war naa dëgër bu yeboo birig yi nga def ci grain saaku ciment ñaata birig la war a doon 30 35 40 bu demee nga def ko 20 kon yooyu birig dina dëgër wallahi boo ko gasul fondement bu baax boo tegee day daanu yaa bunayya laa tushrik billaah loolu ko njëkk a wax mbooleem yonent walaqad baasna fi kulli ummatin rasul an ibudullah wa tanibu taaxut mboolem yonent yi biñ ñëwee loolu la njëkk a dindi Sénégal nag ñu ñëw ne julli leen nga gis waa ji ci jàkka ji mu ngi ngand ak ndombo benn béjjën allahu akbar léegi mu ngi ak béjjën ci baat bi julli julli na mais baaxul parce que mu ngi ak ndombo bi mu ngi ak béjjën bi voilà lam yi fi taaw yi dama am benn élève fan yi sixième mooy xaw ma lu mu doon def rek ma gis ndomb bi may ma ni ko lii la la na sama yaay moom ko takkal ma ne ko pour lan nga ah xaw ma ko de ma ne boo demee nga laaj ko sa yaay nga ne ko pour lan la yaay mu ne ko bul ko génnee ti danga koy nëbb oustaz da koy dagg ba mu gëmul yi loolu la wax doom ji man la laa koy dee dagg loolu amul njëriñ xoola xale bu ndaw boobu nga koy tàmmal bokkaal di ko jàngal bokkaale nga tàmmal ko loolu takkalam waaw takkalam bu ñuul li ma waxoon aslam géej waaye ñu jëlee ma fa sama daara ja waaw ah daara aslam xeex bi ñu am geer geer geer bi ñu ma geeroon aslam kon yow fekkee ma ko woon ñoom papa fekkee nañ ko imam balaa doon xeexal ak ak chef de quartier beeg notable yi sama daara jooju ay xale yu ñu takkaloon ay téere pour examen ma tekki la ne leen li amul benn njëriñ ku jàngul doo am eh ñu ne man gëmuma laaji Maalik ak sëñ Tuubaa xoolal ci loolu laa def de ñu yóbbu ko fële ñu transformé affaire bi ñu woote réunion assemblée générale cité bi yëpp ñëw ñu jënd cahier sans page ku nekk bind sa tur bind sa adresse bind sa numéro kër ñu ne dañ may génn cité bi waaw pétition ñëpp bind ilimaan bi mooy pay chef de quartier bi tegu ci ba moom mu jëlee HLM parce que Sénégal bëgguñu ko wax dëgg waaw bu ko wax dëgg ci lu wér ci lu wax yàlla subhanahu wa taala moom rek mooy dëgg lu dul dëgg lu dul yàlla du dara waaw billaahi wallahi weer lañ ci teg génnewuñu ma fa de maa toog ba mu neex ma ma dem ba ñu defee loolu ba pare signé seen pétition ñu ñëw police am benn sëriñ bu mag bu ñu téléphoné mu téléphoné commissaire central commissaire woo commissaire bu géejawaay du affaire yu ndaw laa leen di wax ah affaire bi dem ba préfecture waxuma leen lu ndaw de ñu ne ñu ne naa bàyyi daara ji ma nekkoon ma bàyyi waaye xam nga bu mu bàyyi nu ma def dama luwe à côté jàkkaarloo ak ñoom ñu xëy suba ñu ubbi seen daara ma ubbi seen daara seen doom yi bañ a jàng ci daara ji di daw di ñëw ci man ñëpp taxaw di jooy xale yi am 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans nga gis ku jël doomam dugal fii mu daw wàcc romb la ñëw ci sama école toog parce que ñaari classes yi ñoo jàkkaaroo ñaari école ñoo jàkkaaroo ñu ngi mel ne ñaari fenêtre yi waaw coow li na pour ci dëkk bi fan lañ mujjee mooy imam bi woote ne day démissionné quartier bi parce que pourquoi man ma nekk fi ba léegi moom léegi waa dëkk bi doy loowuñ ko moom day démissionné chef de quartier bi tamit ne day démissionné waaw noonu lañ def xale yi wuyu suñu daara ji bari ma xam ne problème moo fi nar a ma tox weer lañ ci teg yàlla teg leen ay natt am kuñ dagg tànk bi du ma tudd turam am ku ñaari jabaram dee du ma wax turam am kuñ jàpp doomam kaso am ku jabaram dee ci ñoom am keneen ku dee ci ñoom ci ay fanaa yu tegaloo coow ne kur ci dëkk ba nag waaw léegi man lañ doon xeex yàlla indil leen fitna ñu fàtte ma talatuñ ma maa ngi fàttaliku benn fajar benn bis ma wàcc may ñibbi benn meer dab ma jàpp sama loxo di jooy tukulóor la mu ne ma xool ko woni ibaadallaay mu ne ma doom luy ibaadallaay mu ne ko lan mooy ibaadallaay mu ne ma yow nee nañ ibaadallaay nga doo jullit ibaadallaay nga lii loolu ay doom lu dugal ci ibaadallaay muy jooy ndeysaan mu ne ko ku lox loolu mu ne ma waa cité bi ñu ne ñëw ibaadalaay nga da ngaa bàyyi sa ndey ak sa baay lu ñu nekkoon nga nekk ibaadalaay ay génnal ci loolu di jooy meer bi di jooy yëkk nga xëy nga xam ne affaire yi yombul yombul dëkk bi dañoo yàgg soo bàyyee soo bàyyee cité boobu nga ñëw suñu jàkk ji fii nii pistolet tàkk na fa timis ñu ju liggéey ci amin ñu yóbbu ñu préfecture préfet ne bu leen waxati amin ci jàkk ji kon affaire yi yombul de yéen ngi nii léegi nii yéen seen sunna bi neex na fu mu neex rek muy ndifi tubéyam fii mu ne moom mooy sunnit mu ne ñii duñu ay sunnit parce que affaire bi sedd na da ngeen a fekk fii ñu xeex ba toog waaw jàpp suñu njàmbur pour wane ne dëgg yàlla bi moom amul amul kuñ ci ragal dañ koy wax tey ñuy dunduñ dunduñ suñu yoon nekku ci en tout cas li yàlla wax moom moom mooy dëgg ku ko gëm mooy dëgg ku ko gëmul loolu mooy dëgg alxuraan bi yàlla moo ko wax fekk nit ñi amuñu pas-pas bii tabax pas-pas yi dañuy sonn rek dañuy julli julli julli julli ba sonn fekk baaxul da nga ñëw ci jàkk ñu sàcc sa dal wala wala da nga ñëw fekk jàkk bi ñu sàcc bagage yi lu tax parce que pas-pas yi baaxul ña fay ñëw seen pas-pas baaxul xamuñu lan moo kan mooy yàlla ay julli kërëj kërëj lañ xam xamuñu yàlla ki xam yàlla dëgg du dugg ci jàkk di sàcc billaahi wallaahi taala ku xam yàlla bu foroon un million ci jàkk ji tamit du ko lekk waxuma laak nag mu fay sàcc ay daal parce que xamuñu yàlla yonent yi yëpp bu ñu ñëwee li ñu njëkk a def mooy pas-pas lañ tabax moo tax luqmaan bi muy jàngal doom ji nu mu ko laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim moom la njëkk a tere doomam du luqmaan rek ibrahim wa wasa biha ibrahim bani wa yaqub inna allaha astafa lakum diin fala tamutunna illa wa antum muslimun kon foog la loolu leer suñu bopp foog ñu defar suñu pas-pas yi ba yàlla rek rek nekk ci leneen lu dul yàlla du dara mënul dara ana ana ñi ñu lay wax fi yàlla lañ ana ñu deux jours trois nga dégg dee nañ ñu dem leen suuli yàlla dina dee waaw ñun koy chaque jour yàlla wan nu boppam waaye suñu pas-pas yee yàqu ñu dàpp ne am na ñoo xam ne xam nañu ñun lu ñu nekk xam na lu nekk suñu bopp yi xam nañu xam nañ xam nañ fekk wallahi yàlla rek yàlla kese la yonent bi lii ñu am fi Sénégal yonent bi jàngalewu ko yonent bi jàngalewul lii ñuy def nii amul fenn fu ko yonent bi jàngale amul benn sahaaba bu yonent bi ne dinaa la ramm ëllëg yowmal qiyaam toogal bul def dara amul fenn yow kay dee liggéey di ma jox rek yowmal qiyaam wax naa leen fii mardi passé am na benn borom xam-xam boo xam ne bi ko taalibe yi ziyaare lan la leen wax gars yi ne ko waa yow sëñ bi ñii moom bu ñu fi ñëwee waxu àdduna rek la ñuy wax mu ne àdduna la ñu am problème àllaaxira ñu rek la nañ ko ba pare àdduna bi la ñu am problème ay liggéey ak ay tukkeeg ay passeport ak ay visa ak ay registre de commerce yooyu mooy seen problème buñ ñu woowee ñu téléphone ñu réglé ko waaye àllaaxira foofu rek réglé nañ ko foofu dañuy ñëw rek yëpp dugg te xoolal yàlla li mu wax fii ci aaya bi xoolal yàlla lu mu wax mu ne wa maa lahum fihima min shirkin wa maa lahum amuñu ma benn bennal baat yi wa maa lahum amuñu ñoom doomu aadama yi fiihima ci ñoom ñaar asamaan ak suuf min shirkin kuñ fi associé ci ñoom amuñ ci tus waxoon na sànq lu toll ne pépp suuf amuñu ko ci asamaan ak suuf waaw te kenn associé wu leen ci dara yàlla mu ne wa maa lahu minhum min zahir wa maa lahu moom yàlla amul minhum ci ñii min zahir lu mu leen jox wala ñoom ñu koy delloo wala mu bokk ak ñoom dara amul yàlla bu ñu waxee aaya yi wala aaya yi ñoom amuñu njëriñ wala dañ leen a man suuxal wala dañoo bokkatul ci alxuraan wala seen firi daganatu su yàlla waxee lii ba pare ñun ñu gis leneen ñun dañuy gëm leneen lu ñu gis wala li yàlla wax la ñu war a gëm li nga gis suñu problème mooy yàlla day wax nga génn nga gis benn kilifa toog wax dara misaal ñu ne jullit ñeenti jabar la war a am nga génn gis ko am set léegi ban mooy ban mooy dëgg nga dégg ñu naan noo kii kilifa la te xam nga ne bu doon du dëgg du ko def waaw soo gisee mu daf ko xam nga ne kii ñemewul daf loo xam ne daganul waaw yéen nag xamu leen ci kaw ngeen xam waaye yow lan mooy ci kaw ngeen xam yonent bi ne jullit ñeenti jabar lay am ku ëppal ñeenti yëfër nga mais wala loolu leerul wala misaal ñu ne yonent yàlla Muhammad moom moo mujjee ñëw ba barki dem benn waaye moo ma télé téléphone ne ma waaw dama bëgg lan moo tax ngeen ne yonent bi moo mujjee ñëw lu tax ngeen wax ko ma ne ko alxuraan moo ko wax mu ne fan ma ne ko maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa mu ne noo yàlla dana yonent bi moo mottali yonent yi waaw ma ne ko waaw yow xanaa da nga dof li motul kay la ñuy mottali buñ ko mot buñ ko mottalee bu motee après jeexul. jeexul dégg wax bi. xaatam gis nga baatu xaatam xaatamun mooy jaaru ci arab xaatamun xam nga tax ñu ko xaatam mooy dafa kaste wuron amul leneen loo fi mun yokk moo la ñu ko xaatam dafa tëju kaste yàlla nee na yonent bi moo tëj bunt bi ma ne ko waa léegi nañ bàyyi alxuraan bi nañ ñëw ci xadis yonent bi yonent bi nee na laa nabiya baadi yonent di ñëw sama ginnaaw mu ne ah waaye léegi nag ah ñun suñu kilifa gi nee na moom yonent la te ñun gëm nañ ko mënuñu koo weddi ndax xam na ne li mu am na fu mu ko teg léegi li yàlla wax ak yonent bi wax ak kilifa googu li mu wax ban mooy dëgg yonent bi ne laa nabiya baadi yonent ñëw sama ginnaaw léegi ñenn ñi bu dee dañ naan non non waxuñu ne yonent yonent moo ñëw dañu ne moom ci boppam moom moo ñëw fii Sénégal dafa neex Sénégal li amul benn dëkk moo fi am li nit ñi ñemewul wax li julli di ñemewul wax ci yeneen réew yi waa Sénégal ñoom ñeme nañ ko wax ñu ne ñun waxuñu ne waxuñu ne beneen yonent la waaye dañu ne moom bi mu faatoo ñu dugal ko ci bàmmeel bi ñetti fan la fa def daal di génn ñëw fii toog fi waaw leer leer gi nekk fi waaw waaw waaw xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal non loolu ah xaw ma sax na laa koy tuddee loolu xale yi di wax noonu xoolal nu mu ndoxee xoolal loolu nu mu ndoxee xoolal nu mu nekkee te non kenn xamul sax luñ koy luñ koy luñ koy tekki yonent yàlla Muhammad lu muy wut fii lu mu fi def mission am jeex na yàlla nee na mission am jeex ma al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum islaama diinan keroog bi aaya bi wàcce Aboubacar dafa jooy te dara xewagul ñu ne Aboubacar loo jooy mu ne ah xanaa déggu leen aaya bi yàlla nee na kii mission am jeex na soo yónnee yonent ba mission am jeex nu muy def lu day ñibbi waaw ku ku ku ñibbi ñu ne ñëwaat na ban sariya la indiwaat bu ñëwaatee lu muy indiwaat et puis yi ngeen defaree yonent yàlla Muhammad dina ñëw Sénégal te Sénégal genn wàll gi benn parti bi xamuñu ko tuuti ñoo ko fi xam loolu la nga ne yenn na maanaam waxuma la benn parti waaye bu fekkoon ne Sénégal 20 personnes ñoo fi nekk deux personnes yi ñoo xam ne yonent yàlla Muhammad dellusi na Sénégal deux loolu yenn na maanaam ku toll ne Muhammad muy dellusiwaat te deux personnes ci société bi ñoo ko xam. waxuma la sax Sénégal mais àddina bi tey bu ñu newoon yonent yàlla Muhammad mi ngi Sénégal te wa nga dem Mauritanie nga ne leen yéen ñu ne la sinhu maanaam Muhammad anta majnun lan la yow yow dof nga wax nañ dëgg dañ la yow dof nga ku demoon fii rek Mauritanie naan leen si yow Muhammad ñëw na Sénégal dañuy arrêté seen ambulance dugal la ci yóbbu la fi ñuy faje seen dof yi parce que xam na ne yow normalo moo tax loolu jullit sax na ko mooy te ndi ko di ko gëm ak waxuma la ak nag di ko tuddoo kon mbokk jullit yi wax dëgg yàlla ràmm bu yeboo ñu delloo suñu xel bu yeboo ñu xam ne yàlla rek moo ci mun dara kenn munu ci dara aqsaamu safa al musbit suñ ñëwee ci xaaju ràmm yi ñuy saxal ñu ne mun naa nekk ñu ne araf na anna safa al musbit hiya allati tutlab min allahi taala wa hiya anwa xam nañ ne ràmm gi ñu saxal mooy gi ñuy sàkku ci yàlla moom nag ay xeet la ay façon façon la minha ma huwa xaasun bin nabi am na loo xam ne yonent bi rek lañ ko jagleel am na loo xam ne ràmm goo xam ne yonent bi rek moo ko moom wa minha ma yakunu lahu am na loo xam ne moom moo ko moom wali gayrihi min al malaayika am na loo xam ne lenn ci ay malaayika ñoo ko moom wan nabiyin am na lu yeneen yenent yi moom wa saalihina am na leneen lu nit ñi baax ñi moom wa lidalik bi surut allati taqaddama zikruha nee na wa zalika loolu nag lépp yi ñu wax ne yenent bi am na loo xam ne moom kese la am na lu mu moom am na lu malaayika yi moom am na lu yonent yi moom am na lu nit ñu baax lii lépp tënk nañ ko ci ay charte yoo xam ne am na luñ leen ci leeralal ne nii nii lay demee waaye keneen bokk insha allah talaata bii di ñëw la ñuy tàmbali di leeral ñaata façon ràmm moo am li yonent bi moom liñ ko jagleel moom kese li malaaka yi moom li yonent yi moom li nit ñu baax ñi moom ba ñu xam ràmm googu ñuy dégg nan lay demee ginnaaw bañ leen waxee ne bi ñu saxal xaaj bi ñu saxal ban lañ ci nangu insha allah ba talaata bi di ñëw asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu bu fekkee am na ay question